du bord des populations, du bord des consommateurs et ça fait 34 ans que je suis du bord des consommateurs. 34 ans may xëy suba midi ngoon nit ñi di ma woo di ma wax seen problème ma koy jéem a lijjanti avec les maigres moyens dont dispose une association. ndax tey jii dama lay jox benn exemple très simple rek pour pour lu lay wan loolu képp ku am jaaxle tey soo décroché téléphone ñun ngay oo surtout nag moo xam qualité ngelaw lii. sa sa réseau téléphonique sa sa sa sa njëg yu seer yi su njëg seeree sax ñu déggulee dañ naan dégguñ asko seer te kenn ku nekk nga am yaakaar ne moo lay taxaw rek ngay vérifier na anam wala déet ndax boo amee jafe-jafe est di nga dégg nga fi jafe-jafe njëg yi yokk ñu ne où sont les partis damay laaj ndax parti politique yi ñoo ne dañuy laaj baat askan wi pour li di problème yi kenn du leen laaj ñun la ñuy laaj ñun ñan lañ ab daayira lañ li ñuy def c'est gratuit amul fay amul dara ñun nag kenn ku nekk ñun da nga am sa liggéey di jël une partie ci sa temps di ko jaamoo yàlla pour dimbalee askan wi. mais loolu mooy suñu liggéey. volontariat la yéen ko yéen yéen a fay samp exactement léegi nag lenn tam il faut nga xam ko politiciens yii di fi wax yëpp nga leen di dégg ñuy wax. Mhm. mais dañuy liggéey ñu ci ëpp sax. si nguur gi la ñuy liggéey ñi ay enseignant la ñii nekkoon nañ inspecteur des impôts ñii nangam ñii nangam ñi nangam yëpp ci état la liggéey est-ce que kon ñoom ñoo ñu liggéey ci état waru ñoo mën a nekk euh, dison quelqu'un qui porte la parole euh, de leur idée et non mais kooku mmh. benn deuxièmement j'ai l'impression que yow vous faites. Euh, xaaral c'est une rivalité entre la politique et les. non non non non non non parce que sànq ba léegi yaa ngi naan politiciens yi. non non là on parle pas des politiciens. nous nous parlons de la des préoccupations des populations. ak yéen ñi jógoon ni da ngeen di xeex. voilà pour ak yelleefu. waaye jëndkat yi non non xam nga bu semblé bu demandé maanaam ban camp lañ nekk. mel ni affaire consommateur dafa am camp. tous les Sénégalais les 18 millions de Sénégalais sont dans le camp des consommateurs. nous sommes dans leur camp. on ne peut pas être dans un autre camp il y a pas d'autre camp. seen présence. non suñ présence mi ngi nekk ne lenn rek la lépp loo xam ni ñu ngi koy def tey jii buñ toogee dégguñu sax dañuy laajte ça veut que kon jàpp nañ ni ñun ñu am solo lañ ci li nga xam ne mooy askan bi lu tax. lépp loo xam ne mooy préoccupation askan bi suba mitingoon lañ ci lañuy dox di ci def ay proposition de solution yoo xam ne ñu ngi koy adopté wàññi location ñu ngi koy def te man du ma locataire du ma bailleur suñu xëyee depuis 2014 ñuy def ay initiative de wàññi yoo xamante ne bi ñun ñoo ko initier état d'accord ci ñu di ko appliquer mais kon defuñ pour ñun dañuy def pour li nga xam ne moom lañ gëm ndax man mbirum consommateur dama lay jox benn exemple rek ñu bari Sénégal nit ñi fonctionner mais dañ jàpp ne ku nekk la ngay def rek am na lu tax nga koy def maanaam lu nekk rek da nga ko war a xam nga moom wax na la sànq ne la xam nga laaj nga ko question bi nga ko laaj nga ne ko loo ciy gagné mu ne la non artiste day liggéey rek parce que dafa gëm loolu. moom laa lay wax dépense boo ci dépensé temps ko ci ngelaw li. non non parce que parce que loolu mooy man li ma dépensé ci affaire de défense consommateur mënu ma la ko wax te xaaruma pour consommateur yi fay ma ko dama ko gëm parce que sama baay bi ma nekkee xale dafa dem wax mbokkam yi ne leen dugal leen seen doom yi école. ñu dugal ñu ne mukk duñ dugal seen doomi école dañ leen di dugal école arab maanaam dañ leen di dugal ñu jàng alxuraan mu naxanteeg ñoom bañ dugal seen doom yi mais bi ñu amee eh, entrée en sixième war a dem lycée seen dëkk yi amul liise mu ne leen léegi xale ñu ne leen xale yi dañ leen di yóbbu ci tool yi mu ne leen déedéet bu leen yàq seen jàng ñu andi leen ñu nekk suñ kër Kaolack sama baay nekk ki nga xam ne mooy seen tuteur am naa mag boo xam ne 45 la juddu bi muy juddu y avait presque une quarantaine de jeunes garçons yoo xam ne sama baay moo le demoon na ba nekk sax président parent d'élève pour toppatoo seen njàng parce que li gën a am solo ci nit mooy xam-xam mooy li nga xam ne nit ki buy sangu du ko dindi mooy gëm yàlla mooy jubam mooy bëgg bëgg bëgg lu baax